li ñu fi dajale tey mooy li ñu doon jooy boobu ba léegi rek depuis des années parce que commencé wul tey secteur u transfert moo nekk secteur bu nga xamante ne dañ ko seetaan mu nekk secteur bu ñu warul seetaan parce que wane na li mu mën dëkk bu nga xamante ne liggéey moo fi gën a ñàkk nga am secteur bu lay créel des milliers d'emplois da nga see war a jàpp d'autant plus que ñaanuñu la tàllaluñ la ñoom ñoo débrouillé ba amal seen moyen di jox des service de qualité léegi service boobu tey moo menacé wu ñu demandons balaa ñoo jëm fenn à l'État mu taxaw xam ne soo amee une classe entrepreneuriale da leen di bàyyi xel da nga leen di téye da leen di jàpp loolu mooy fulla comme dëkk yëpp ni ñu koy defee. li xew lan la li xew mooy que amoon nañu sert lu mauvais mais tey le piir lañ ñu andil le pire lu nga xamante ne amul benn dëkk bu sérieux bu ko war a nangu. un produit comme Wave bi mu fiy dugg mu dugg par infraction xam nañ ci ay suñu mbokk ñu nga xamante ne tey jii ils étaient nantis am ay 10 de temps tey jii. ils ont tout vendu man ki ñu xam loo Wave bi mu ñëwee si ñun di ñu ko présenté on avait les armes aux yeux Wave da ko doon topp 30 millions il a tout vendu sa maison séyam sax tas na produit boobu tey jii moo ñëw nekk une menace réelle pour le cancer nu mu nekkee menace dina yomb a comprendre même les clients yu nga xamante ne daw nañu song Wave lan moo tax ñu daw song ko ñoom seen gratuité parce que nee nañu lépp amul fay dañuy may lépp que ça soit clair on n'a pas de problème avec les clients clients yi lu mu gën a yombee si ñoom ñun d'accord nañu mais nag lu faisons du business ay entrepreneur lañu jël ay salle jël ay personnel am ay charge képp ku ñuy liggéeyal en contrepartie dañ ci bëgg dara comme yow salarié bi ni nga bëggee weer bi dee ñu jox la salaire nga dem fayal sa doom faj sa jabar yor sa kër ñun loolu la ñu yoree suñu bopp donc produit bu ñëw nag ba bëgg a dindi loolu bëgg a andiwaat njaam ne liggéey leen te doo leen ci am dara loolu kenn du ko nangu. Wave loolu la andi andi na 1 pour cent ndax ba dugg nee naa leen amu leen benn mérite dafa mel ni transporteurs yi dañu am des prix homologués soo bëggee dem Pikine lii ngay fay 100 francs 200 kenn xëy rek ne man ñëw naa indi naa samay oto léegi dërëm ngeen di fay ñaar dërëm ngeen di fay ñëppay daw song ko où est le mérite mais ñiy liggéey ak yow est-ce que dinañ ci génn. lan la ñuy def seen oto pour am essence lan la ñuy def pour dox loolu mooy la situation Sénégal ñëwuñu fa pour xeex dañu ñëw pour sauver le pays parce que ay travailleurs lañu Wave li mu fi andi su ko saxalee tey moo ngi si ñun mais suba moom lan mooy seen si lapsus nee nañu ñoom dañuy perte évidement il faut ñu perte sooy liggéey te feyeeku woo defoo dara gratuit da perte mais lan moo nekk ci ginnaaw loolu lu nekk si ginnaaw du philanthropie boobu ñuy wax de philanthrope du taxaw naan damay investir sur long terme philanthrope day jël xaalis bi mu am yëpp ñëw joxe seen télé ngir yàlla ak yonente bi mais kii li mu bëgg mooy client yëpp daw jël jël Wave bi def fa seen dencukaayu xaalis dajale fa des sommes colossales su paree ñoom ñu jël xaalis boobu dem di ko placer di utiliser taux de change bi di def des chose yu nga xam ne ça les rapporte des milliards et des milliards et des milliards loolu ku ko fi andi accompagné par une partenariat bu nga xam ne mënul wax ak kenn ñoo ñu bëgg a loolu kenn du ko fi nangu kenn du ko fi nangu loolu nag moom la ñu bëgg yëgal ñëpp ne ñun aviser nañu ñëpp am na certes de prestataires peut-être comprendre ñu on les ñoo ngi leen di kii mais dañu bëgg ñu xool li ñuy liggéey nan nga mën di yoree somme yenn yi di tourner avec une somme de huit million de six million à la fin de la journée tu te retrouves avec 6 000 avec 5 000 loolu lan la mën a soutenir kan ban charge la mën a yor Wave waxaat nañu si seen benn leen lapsus ne li leen tax a jóg mooy rey point yu ndaw yëpp ñun loolu duñ ko nangu parce que point yooyu ñuy wax point yu ndaw ñoom ñoo yor dëkk bi ñoo substitué yoo aux banque di liggéey de 7 heures à 23 heures quartier boo dugg coono amatu fa dépense yu ndaw yi fa lay jaar loolu suñ ko fi jëlee dañuy yàq suñu société donc Sénégal yëpp ñoo ci war a taxaw nag daje nañu pour wax loolu nekkatuñu fii di xeex di boy boycotté di di mer di sitting parce que loolu ñi koy def mooy ñu amul dara gars yi fii ay millionaire rek fi toog xaalis bi circuler ci transfert yëpp dama bëgg ju leeral dara wari joxuñu ko wéew joxuñu ko parce que parfois nit ñi dañuy foog loolu sañu xaalis la ñun ñoo ko jël moom ko di ci liggéey te kuy liggéey da bëgg a gañe am nañu droit ku fi indi produit bu nga xamante ne day làq yu ñu yor ñu won la ginnaaw léegi loolu la woote prestataire du Sénégal won leen ginnaaw Wave daf ñu fi bëgg a jëlee nañ ko fi jëlee tous les moyens sont bons. li ñu fi dajale nag suñu teewaay mooy produit bi nga xam ne nii mooy produit bii di Wave dafa jóg pour nasaxal prestataires yi dafa ñëw fekk ñu suñu teraanga ku ne xam na ne métier prestataire métier bu noble la ku ne xam na ni itam ñu ci investir bëri na ak ay employés yooyu nag dafa ñëw pour daaneel ñu dafa ñëw itam pour taraxal ñu moo tax ñu xam ne nag carrément ñun ñoo lànk duñ nangu loolu ba tax nag moo tax ñetti asa ñi ñëpp ñu booleew xam leen lii ñu wéef nar a teg duñu ko nangu ba tax kon ñu ngi lancé itam président de la république monsieur Macky Sall di ko wax mu dégg ñu xam ne ni actuellement nii fi mu toll nii seen yaa ngi jël gaal gi di dem bitim réew ñu ngi dee ci géej gi ñun ñu ngi yor suñu liggéey ba pare te lu ñu yore ku ne xam na ne mën naay paas si gaal gi suñu tout lu ñu xam itam dinañ dugg si gaal gi waaw kon nag fu mu toll nii nañu nañu àtte ak wéef mu réglementé ko wéef tegee ci yoon parce que produit bi mu fi indi baaxut ci ñun daf ñuy toroxal imagine que nga liggéey ba 10 000 francs wéef ne du la fay dara fan la ko teg kan mooy fay mille 2000 3000 léegi si point yi su ñu àttewoon nag ak produit bii di wéef ñun prestataire dinañ ko lijjanti suñu bopp ba tax na kon actuellement ni ñu ngi ci geraw boo xam ne bawuñ xel denn si gannaaw benn yoon fekk njiitu réew mi waxut ci wala ñu war a lijjanti loolu nañ ko lijjanti ñu réglementé wéef ba mu tegu si yoon ndax ñun kat pare na ñun ñëpp képp ku ñu fi nar a jëlee ñu jëlee la fi waaw loolu mooy wax ji nit du ñëw ci réew fekk fi ay nit ñu yor seen métier nga jox uniquement pour toroxal leen képp ku ñu fi nar a jëlee danañ la fi jëlee insha bi loolu daal moo doon kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam